war nañu delloo war suñu xel tuuti xam ne dëkk ngor la dëkk diine la dëkk fulla la dëkk fayda la mais gis nañ ne tey Barthélemy Dias dafa war waa Dakar parce que war waa Dakar weesuwul nga jël koo xamante ne dañ koo dàq ci ab corps de gendarmerie parce que tamit dañ ko wax te dëgg parce que gendarmerie dafa am code de conduite koo xam ne dafa def erreur ñi dàq ko ci gendarmerie yow Barthélemy Diaz nga jël ko nga ne yow yaa koy def sa conseil technique au niveau de Dakar saaga Dakar waay la saaga waa gendarmerie la nga jël ko mel ni Guy Marius Sagna fonctionnaire la mais dañ affect Tamba mu ne du dem Tamba Tamba du ay Sénégal la ñoo fa nekk wala Tamba bokkul senegal parce que yow Dakar nga bëgg liggéey nga liggéey Dakar ñu affecté la nga ne doo dem Tamba attends fu ñu ko teg te am na ay Sénégal yoo xam ñu ngi wër liggéey amuñu liggéey yow sénégalais yi euh, kii la ketal la nga am oto sénégalais yi dimbali la tey yow nga ne non sa fo yow bëggoo liggéey Tamba Dakar nga bëgg a liggéey fu ñu ko teg donc il faut Sénégalais delloo si waat seen xel ketal nañ ko moom oto tey utal nañ ko beneen liggéey mu ngi mu ngi mu ngi mairie de bu nekkee Sénégal boobu lañ ñu bëgg a jaay ñun ñoo xamante ne dañuy seen seen gendarme ñun ñoo xam ne dañu leen affecté ñu bañ ñooñu ñooy nitu góor yi ñooñu ñooy guerrier yi yaakaar naa ne ay muus lañu wala ay kaña lañu wala ay jinax lañu war nañoo tiit beneen bi mooy solo soosi noonu xaw ma Ndeye Khady la tudd xaw ma man de waxuma Sonko moo violé wala violé sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci parce que nit ku maandu la mais damaa yaakaar ne ndaw soosu noonu lépp luy ji njaaj këram la xewee ci salon la xewee am naa amut mais daal dem na fa lu fa xewee ci salon la kooku nekk warul nekk exemple ba nit ñi jël di ko ketal di ko ñaanal xaalis pour di ko dimbali parce que tey am na ñoo xamante ne ñu ngi fii war a faju mënuñoo faju war a lekk mënuñoo lekk war a solidarité war na am suñu biir mais dañoo gis ne opposition bi ñoom balaa ñoo katal nit rek nekk nit ñoo xamante dañuy yuuxu ci rajo yi yuuxu ci Facebook fekk am na ay population yu fi nekk nekk ci ay coono nekk ci ay mbënd nekk ci leneen ak neneen ñu war leen mën a jàppale